boo ñaanee jàmm ñun la waroo ñaan jàmm ku bëggul jàmm boo bëggee musiba rek du sawara nit ku baax ku ne day bëgg jàmm yàlla nag boo ko ne damaa bëgg jàmm yàlla mooy xam na muy def ba indi la jàmm kere bi mu ne rasulullahi il faut nag nga taxaw ngir jàmm am mu ne ko nu muy dem mu ne ko demal Badar ku dee ci ñoom dem sawara ku dee ci yow def àjjana wax jamat moom noonu la seere wat jàmmam waaye sëriñ Tuubaa ni mu seeree jàmmam moom mooy ku ko tooñ mu baal la ba yëgg ci afawtu anil aada yi turan baal naa ñëpp moom fexe na ba ñépp am jàmm taxaddamut na ba ñëpp am jàmm taxaddamut principe boobu mu doon demee nag ñun murit yi foofu ñu war a nekk ku sëb sëriñ xeex ba daanta jëmul bënnut cin fuqul paaka dëmut bay woote jàmm war ko bàyyi xel loolu moo mat di bàyyi xel ñaan leen jàmm rek jàmm ci la lépp xaj ñaan leen jàmm rek jàmm lépp a ci jàmm situation yëpp ñu ngi loxoy sama borom yàlla lu mu bëgg a régler dina ko régler dara du xew ñu yéen ñaan leen jàmm rek tey yéen a jàmm ñaan leen jàmm tey yéen a jàmm tey wax jàmm tey def jàmm tey jëf jàmm ndax ku yéen a jàmm day doo ñàkk jàmm mukk loolu maa ngi leen koy sant di leen ko digal yàlla na yàlla defal leen nag jàmm maa ngi ñaan ci barke borom guddi gu tedd gii di Cheikh Mouhamadul Fadal maa ngi posté samay kàddu ci Serigne Sadio bu jot lil ma ko yàlla na ñépp am jàmm yàlla na ñépp am jàmm réew mi na ñépp am jàmm réew mi na ñépp am jàmm réew mi na ñépp am jàmm waaye waaye waaye ki sax jàmm la bëgg nit lu ko naqari rek jàmm lay wut yàlla na la yàlla jox jàmm jox ñépp jàmm bañ a teg kenn jafe-jafe yàlla Sénégal naat ñépp amee xéewal suñu borom teral na leen teral na leen ci saay teral na leen ci baati ay waay ay waay nitu yàlla ku toll ni Cheikh xew Serigne Touba yàlla dindi ko Sénégal borom xam-xam bu toll ni El Hadj amul furul Sénégal ak li fi nekk ci ay wàll suñu borom yëmut ci loolu de ni leen dinaa leen jox ay garab ba ngeen doyal ay garab la ci nekk lépp façon garab bu nekk ngi biir Sénégal àll bi naat yëmu ca mu ne dinaa leen may jant ñu bari amuñu ko ñu bari saksu ci cat la ñuy nekk ak jant lim mën a maye. bu ngeen ko saytoo sax du ngeen am du ngeen fay facture courant lu cher yëmu ca mu may leen nature bu baax yëmu ca mu may leen sax yéen far seen seen réew sax far géej a ko wër nag far nag ndox moo ko wër ndox sax moo ko wër far yëmu ca mu may leen suuf yëmu ci mu may leen or yëmu ci mu may leen jamaa yëmu ca mu dem beeg man léegi xaaral sax ma génneel leen pétrole far ay waay teraanga ju nekkee ngi Sénégal ngeen boole ko am ñu tedd ñoo xam ne ku leen xalaat rek am jàmm lu tax wër leen am jàmm lu tax kon du ngeen am jàmm il faut ngeen am jàmm fokk ngeen am jàmm Sëriñ Tuubaa mënu fee ne di jàmm Seydi Alhaaji nekk fi di jàmm walliwu yàlla yi nekk fi di jàmm dëkk bi naat ci jàmm kenn du leen xañ jàmm yéen kenn mu leen a am jàmm ah, da ngeen di am jàmm <laughs> fokk ngeen am jàmm la sëñ Fall waxoon de ci benn politicien bu ko bëggoon a xañ jàmm fu mu toll Fall du wax sëñ Fallu Fallu lii Fallu laa daa waaxu ba ca Mbàkke mu toog ci ab fotom sol yére bu ñuul kukk jàkkaarloo penk bi jant bii dem ba ni ba ni ba ni xamuus mu ni jant meng diw meng ndax ma am jàmm <laughs> loolu jugu fii bu ko jàpp ne jug nga fi rek xamoo li xew yéen kenn du leen xañ jàmm man maa leen ko wax kenn du leen xañ jàmm jëru tiit jëru ragal jëru dara fokk ngeen am jàmm da am jàmm de kenn du dee ñëppay dund waaw la Sëñ Saali waxoon ba sëñ Abdul Ahad ne Touba gi sama bakkan bii laa ci gar sëriñ Saliou sama bakkan bii dama koy jàmmal sama borom ku fi def lu doon seen bakkan laa ci gar dama ni benn bakkan du dem da ngeen di dund am jàmm li ngeen bëgg ngeen am ko sëriñ Touba not na lépp pët pët yàqul meex yéen yéen ngi jël pee bëgg xëccoon ndàdde yéen a ñàkk fay dax senegal da ngeen jël paie ba dem di xëccoo ci ndànk loolu ku baax du ko def jël paie mooy li a fi lim lépp yàlla defal leen ngeen dara foog ngeen am jàmm man maa ko wax jàmm day am kenn du leen ko xañ te ku leen bëgg a xañ jàmm di ngeen xam ne Sénégal jàmm rek a fi xaj kooka danaan mes ngeen am jàmm loolu kay maa ko wax ndax jàmm mooy war a am ku leen bëgg a xañ jàmm ubbi leen seen bët di xool mes jàmm kon na di am fii jàmm rek a fi am. du dëgg te ku ma déggati nga ni Sénégal dana tàkk yow da nga tàkk yow barke borom Touba réew mu Serigne Touba nekk sedd gu yi am jàmm kenn mënu koo taal jàmm rek yam fokk ngeen am jàmm fokk ñu am jàmm mais fokk ñu may nu jàmm loolu laa bëgg te nag maa ngi rafet njort ci ni Serigne Saliou dana nu ko defal man sama leader mi ngi tudd a Cheikh Saliou Mbacké kookoy sama leader du kaneen kooku rek la du kaneen loolu foofu rek laa ci yem ndax man foofu rek laa toll yàlla na yàlla doon leen sutura te doon leen jàmm